ndajeem tay mi kat liko waral moy yëpp leeral li nga xamé ni moy liggéey bi nga xamé ni ak projet yi nga xamé ni khuddamul khadim daayira bi tudd khuddamul khadim seigne hamsatou mbacke mom Cheikh Abdoul Ahad mbacke soson ko ci ndigul Cheikh salihou mbacke mom lañ doon andi ay leral surtout rawatina ci ginnaw amna sortie bo xamé ni commission bi nga xamé ni mo yéré walu sécurité amna na jama yum jamatoon ci teewaayu pourtant boobu sax euh, police mi ngi teew euh, commissaire euh, normalement bu janatu ah ci kanam yëpp faaye dañoo xam ne civil amul droit di gàddu donte am nga autorisation ay fetal ak ay kii yeeg yooyu bokk ci nité la doog nité doog nité même boo amee sañ-sañ bi itam war ngaa mën a am nee noo ko def bàyyi ñi nga xamee ni ñoom ñoo yor sécurité bi ñu cherché leen loolu donc ñu mën a taxaw pour yor loolu euh, biñ gisee nag ñu yore loolu donc ci leen leen woo leerale leen ne leen lii ngeen def nii euh, donc xuddaamul xaddi ci yi nga xamee ni mooy ay ngëm-ngëmam ak ay pas-pasam doxi wut noonu doxul ci leen loo xamee ni dafay indi violence wala dafay indi jiixi jaax ci askan wi ndax li ko tax a jóg mooy jàmm ji nga xam ne moom la Cheikh Khadim woote woon même buy xeex itam comme ni Sëñ Tuubaa doon xeexee rek waaw inni ujahidu bil ulumi ñun xam-xam la ñuy xeex ak ragal yàlla donc xam-xam boobu nag moom lañ jiital ci biir xuddaam moo tax mu composé ay commission yu bare bari nga xamee ni sécurité moo ci gën a tuuti donc comité bi nga xamee ni mooy scientifique limi muy liggéey kenn xamul num mu toll scientifique rek nga xamee ni sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Hamza moo ko jiite di ci dox dox yu am solo yoo xam chaque jour mi ngi ci ah commission discipline itam li muy liggéey kenn xamul nu mu toll mais nag yooyu feeñut parce que dañuy dem ci euh, xam nga tubaa dafa rëy tubaa dafa rëy euh, euh, di dem di sensibiliser nit ñi fàttali leen leeral leen njàngum sëriñ bi nu ñu war a ñëw ci dëkk bi nu ñu war a tooge am na ñoo xam boo fàttalee dañuy daal di delluwaat ah daal di léegi xamuñu ko woon daal di delluwaat bu ko defee ñu daal di fàttali ko loolu la ñuy def waaye doxuñu pour lenn lu dul liggéey Cheikh Khadim ndax bu fekkee ni suñ borom dalaa boole ci sëriñ bi ko xéwal gu rëy goo xamee ni nag toog courage la bara naa def ah delloo njukkal sëriñ bi ci lépp loo xamee ni bëgg-bëggam la ci dëkk bi ñu dox ko lépp loo xamee ni bokkutoon ci bi muy sax ci dëkk bi ah, ñu fexe ba loolu dañ lii rek mooy mais dindi gi nag du dindi ay coow ak ay xuloo wala ay violence wala dara non lépp dañ koy def ci lan ci ak teey ak teg akum xel parce que nit ñi ay nit lañ dañ leen di traité comme ay nit mais du ñu ay leneen léegi boo ko defee itam ah, commission bi nga xamee ni comme mu Diop Diawbe ah, jiite na ko ah am ndigal

dana ko ak police police ñu jël ci ko lool moy lool mais xudam amul ay police religieux yi euh, ci ressources sociaux ñuy wax di sos di ki ak yoy lan lañu ñu lool mais ñun ñoy ay kat gëm ci wa xam lepp ay citoyen nek ci réew mi xam liñ wara xam lepp donc amul dara lo xamé ni dañ koy def luy juyoog njàngalem Sëñ Tuubaa lépp luy juyoog kaddu kilifa gi wala luy ak état parce que ben système la wala ben dustuur la bo xamé ni mais ma ngi ñu ci yam ñun ñep dañ ko respecter musta ber yoonu bopam parce que boy ber sa yoonu bopp nit du per yoonu boppam nit euh, bu fekkee da ngaa gis ñuy dox te lañuy ñuy dox euh, di ay loi yoo xam ne dañ ko wote man ci laa euh, bokk ci ñu ko wote ci nga bokk ci ñu ko wote non kooku kenn du violé képp koo gis koo xamee ni te loolu jàng nañ ko rasulullah yi jàngal nañu ko nee na mbooloo kenn du ko beddee ko ah, waaw man chas da chas da fi nahoor ah am mbooloo kenn du beddeeku àndal ak ñoom seen i ngëm-ngëm seen i pas-pas seen i xalaat adduna nag wala tan sa nasibaka mina dunya lañ wax ay nit bu ñu waxtaanee ba xool ne lii bu ñu ko doxalee seen adduna mën a jàkk ñoom ñëpp ànd ku ci àndul rek kooku l'islam taxaw na jël na ay dogal ay mesures yoo xam dañ ko war éliminer kooku ah kon amul dara lu ñuy kii ak yooyu na ci loolu ñun amuñu problème ak safina amuñu problème ak muqaddimatul xidma amuñu problème al wafa amuñu problème ak benn daayira bu fi nekk maa ngi ñëw ci ñun ñëpp lañ jox loxo ñëpp lañ jox loxo collaboré euh, màggal yi dañoo collaboré màggalu sëñ Abdou Khadir màggalu sëñ Chahib màggalu sëñ Abdou Lahad pourtant ay màggal lañ te pourtant jàmbur lañ séeq kii day liggéey fii kii liggéey fi tool sëñ Tuubaa dafa bari da ngay yónnee jëwrin fii yónni fii jëwrin yónni fii jëwrin safri amaan non non bu nit ñi di dugg ci euh, diggante boobu sëriñ Moudou Lo maa ngi moom bii waxtaan nañ ba lu bare bari xuddaam aw tur la ab am na récépissé Safina aw tur la am na récépissé benn bu ne social yi moo ko joxe woon ñun maanaam bu ñu àndul nii ci euh, euh, ci bokk ci benn itam ñun ñoo ànd ngëm-ngëm pas-pas lépp ñoo koy bokk liggéey euh, biñ mujjee daje ah dafa kontaan lool daan ni lépp loo xamee ni xuddaam comme dama kon woo sax mu ñëw moom conférence de presse bi sax moom moo ko waroon a def parce que bu xuddaam di def na mbudloo ñëw def ko bu safina di def naa ñëw def ko ñun noon noonu lañ ñun amuñu ay jëmmi sëñ xanaa du dëgg mais sëñ Tuubaa ñun amuñu ay xàjjeeg seen amul naan kii di xëcc fii kii xëcc fii xëccoo pour lan ban intérêt moo ci nekk liggéey sëñ bi rek moo ci nekk kon kon ñun ak waa safina benn lañ ñun ak ku dul safina itam benn lañ ñun benn lañ amul amul xajje amul ñaar donc loolu waxtaane ko suñu biir ba buñ xajal kenn muy dugg ci biir naan ay safir li mu bëggoon a liggéey li xuddaam da koy nangu xuddaam lu muy nangu xuddaam dafa yor euh, mais safina yor ay principe boppam te safina bu daanoo wala safina bu liggéeyut mais ñun duñ seetaan yëfi Sëñ Tuubaa yu daanoo yu yàqu non jamais ak ku ko a yore te Sëñ Tuubaa du doon jamais ñu koy seetaan muy daanu wala muy am benn problème ah, a dañ koy soutenir jàppale ko ñun ñëpp benn du dëgg xanaa fayu ñu kenn euh, fayagun kenn bëgg nañ ko nag parce que ay ndaw itam bu dee liggéey ay ndaw lañ parce nit euh, même boo ko fayul itam na aw dàll soxla na lekk soxla lu kii mais amagun ko amagun ñu jeex sëñ Tuubaa jël seen doole seen lépp kenn fayu leen dara pourtant kenn fayu leen dara waaye nag euh, euh, bi ñu xalaatee nag ñun ñun ñi nga xamee ne xaj na xaw nañoo euh, kii dara sëñ bi ñoo ngi xalaat pour jéem a pour xool lu leen dimbalee waaw parce que bi ñu ñëw nag non dañuy engagé wu kenn fayu leen dara jëm sëñ Tuubaa la ñuy liggéey non non arme kooku passé na kooku leeral nañ ko ci commencement arme looy doy arme non non non non laajal ba mu neex non non doy doy ah, ab arme loo koy doy arme loo am nga arme yow am na arme keneen am na arme mais arme pour lan la mais dafa am ay këyit am na mais téel sa arme denc sa ah euh, arme foo koy génne mais mais ñëpp a mar ba ay arme fan arme ah mujj jaww bu fekkee moom nga bëgg wax même bu yore arme mais police ci biir police dem yor arme fekk waru ko war a yor mais police danaa ko ba ko yore mais police la àndal police ko may ko ay kii ak yëpp mais yore ko yore ko fotowu ko leen a woo ci boppam am na comité discipline bi ñoo leen woo tàgg aw yoon nee lii du dëgg lii du def nii xoddaamul xadim du nii kii nangam nangam ah, ay citoyen yi nga citoyen mënut a jubani حاجه زي